suñu bopp mën naa wax ni sëñ Fallou ak sëñ Abdou Khadir ñoo gën a jege ci bokk waaye dañoo jaay bokk jënd ko taalibe di def di taalibe yi def sëñ Fallou daan wax naan sax may mooy sëñ sëriñ wala sëñ mokla ndax ñu moo ñoo mujj sëñ Tuubaa ka jàpp ko gën a ndaw muy sab sëñ rek kon bàyyi woo kenn ci diggante bi te boo bokk dong moo gën a jege sëñ waaye nag dañoo jaay lépp jënd ko ak taalibe bu dee bokk seex bi jënd bokkut ak sëñ bi dara waaye sédd na ci sëñ bi loo xam ne kenn séddu ko ci te ak taalibe rek ko may kon nag ku ñaan ñàkk soo jëndee am kon dañoo war a jënd sëñ Tuubaa dafa lëggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fàtte léppam jox ko boppam ko njabootam nafsi wa diini léppam la ko jox yonent fay ko loo xam ni ñëpp teg nañ seen bët nam joxe woon yonent bi boppam itam Cheikh Ibra Fall noonu la joxoon sëñ boppam ba mu defal ko dem ba defal kon nag yoon bi daal naa ñi ku bëgg a jëlee na nga ci képp koo xam ne dangaa liggéey sëñ Tuubaa fàtte sa bopp boo fi jógee sëñ Tuubaa danaa taxawul sa njaboot taxawul képp koo xam ne danga fay nekk fàtte Sëriñ Tuubaa waaye du taxaw sa bopp du taxaw sa njaboot suñ la dencee fàtte la sa njaboot la ci jox kon yàlla si yàlla musal Sëriñ waaye ak njabootam ñett kuñ dara maam Cheikh mi bàyyi ji ko dara waaye njabootam dara kon wane mhm. dëkk bi dañ ko war a jox orma mhm. di ko waju di joxal mhm. di ndax mos bëgg dëkk fenn mos a bëgg fanaan fenn ful Tuuba yàlla na toog ko loolu ba mu jóge fii denc ko fi dañuy wàll yi bu dëkkee dëkkal nañ bay wax ni fañ ko denc ba ba ko denc uh, ak fam ak kon Tuuba am na cër bëgg lu war a fonkale sëñ bi cër borom ñi ci mën a jàpp nag wuyu si woon nguur gi wasilul daaxle mu ñuy wax ministre de l'intérieur difaa ministre de l'armée wasilul tijaara ministre de commerce ak raïs doon ci boppam chef de l'état kii mooy lif gendarme yi kii mooy lif yi kii mooy lif douane de l'état nag yilif leen ñoom ñëpp kon nañu dimbale bu ñuy indil Tuubaa nit ñu indil ñu yiw mën a jàngateeg taalif yi te ñu fi indi kenn ñu waxtaan ak kilifa yi ba xam ndax kilifa dañ leen di sàmm leen seen njaboot dañ war leen waaye indi fi nag ñoo xam dañuy dóor nit ñi ak di leen toroxal ak di xas mën naa ñàkk feebar bi ñu ko sëñ si di waxee léegi ñu ngi ko tudd fu ne ma nag naka waaye te yoon nañ fi de taalib yi fëgg fëgg boo xam ni ak sa woon na tubaab ba sëñ mën taxaw wax guddi ñu bàyyi fëgg ñu tëjaat ko nit ñi fëggati ba jëm pale sëñ Mountakha waxati ñu bàyyi fëgg ba buñu tëjaat nag fëggum ñetteel loolu mooy première vague ak deuxième vague muy troisième vague buñu tëjaatee dañ fëgg te buñu fëggee utbul daañ bàdde te buñu bàddee nag dafay ëpp la kon njiitu réew mi maa ngi lay conseil nga am yërmande réew mi noo ko bokk na ñëpp war koo defar nit ñi xiif nañ mar nañ nañ leen dimbali ci loolee bëgg nañoo liggéey amuñ jum am nañu liggéey ba léegi jox ko nit ak jiw bu doy sakk xam na yàlla yeexal taw bi ñi mën a am aw jiw ndax borom yërmande yàlla na ko jox ñëpp tam taw ñu ñu ji waaye njiitul réew moom ndax yonent bi sallallahu alayhi moo tax na bindu ñëpp waaye yàlla da ko yónni muy yërmande yi bi def yëpp wax ko itam fa bimaa rahmatin minallaahi linta lahum walaw kunta fazzan galiizal qalbi lan faddu min hawlik am noonu bu ni mel kenn du la wër kenn du nekk yow daawuda place yonente la taxawoon waaye ko yaa daawuda ko euh, innaa jaxalnaa xalifatan waaye fahkum bayna naas bil kon nañuy ci dëgg te ba ñuy at ci tappale ak fen léegi nag day mel ni nun ay jullit lañ ay taali lañ ni Macron mooy sunu imam Tour Eiffel mooy sunu xibla ndax tubaab bi dañuy copie loolu nag jëriñum réew jëriñum jullit noonu daal nañ jàpp ci Sëñ Tuubaa jàpp li ñu digaloon te mooy ci lim ñu teral te mooy lu baax mooy li jëriñ wax ji jërëjëf gudd ndax maa ngi déglu sëñ si dama jox kàddu gi rek waaye loolu nga wax ndax li wax lépp mat na kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñaan ñëpp jàmm asalaamaaleykum